wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha min ash-shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil aliyyil aziim yaa hayyu yaa qayyuum yaa zal jalaali wal ikraam assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ñu ngi nuyu mbokki jullit yi nuyu jullit di nuyu lislaam di ñaan suñu borom subhaanahu tabaaraka wa taala suñuy kàddu fekk leen ci jàmm ak mu yërmande yàlla ak am la mu mel ni nag dañuy dellu ci suñu jotaayu yóbbalu ndaw ñi mu jotaayu xam-xam di jotaayu fàttali ñu nekkoon ci téere bii ñuy wax tasawwadu sixaar ñu nekkoon nag ci sunu xaajub ñetteel xaajub ñetteel bi rek mooy jàngale lan mooy al lan mooy tasawuf sunu bind bii mujj nag jàngale woon nañu lan mooy tasawuf ba tolloon ci ndénkaane yi nga xamante ni sëriñ bi daf koo dénkaane muy dénkaan yu am solo ci bépp jullit moo xam ndaw moo xam mag kon ñi ngi tam ngi tolloon ci dénkaan yooyu sëriñ bi dénkaane sëriñ bi wax na ne wattahidu fi taati rahmani aysu takununa bila udwani mu ne wattahidu dénk naa leen na ngeen farlu fii taati rahmaani topp yàlla mi aji yërmande ay su takunuuna foo leen man di nekk bila odwaani ci lu dul jalgati mu ne maa ngi leen di dénk na ngeen farlu ci topp yàlla topp yàlla nag mooy fexe ba lépp loo xam te nii suñu borom dafa la koo sant muy ay farata ci yow nga fexe koo def te lépp loo xam ne ni daf koo tere nga sori ko waaye bu yem ci def farata yi dong de na nga fexe ba boo defee farata yi ba pare lépp loo xam te ni dafay maye tiyaaba muy xeetu naafile yéeg yépp loo ci man nga farlu ci def ko waaye nag ni ngeen topp yàlla nag waaye nag foo leen man nekk foo leen man di nekk ak foo leen man di topp foo leen man di toll na ngeen di topp seen borom subhaanahu wa taala mu ne laa tuksirul kalaama bu dénk naa leen ngeen di bañ a baril ay wax waru xaada ak ay nelaw wajtanibu na ngeen di wattandiku maa lépp loo xam te nii yuuju bi day waral alfasaada ak yàq dénk naa leen na ngeen wattandiku wax ju bari lu amul njariñ bépp wax joo xam te nit ki daf wax te bu ko waxee ba pare amalu ko benn tuyaaba na xam ne wax jooju wax ju amul njariñ la ak bari ay nelaw ni ngeen ko wattandiku ndax bokk na ci yi nga xam ne dafay wowal ab xol muy baril wax ju bari yu amul njariñ ak bari ay nelaw bokk na ci wowal xol waaye bokk na ci yi nga xam ne day tax ak dund du barkeel sa dund du am njariñ seen bi na ngeen wattandiku lépp loo xam te nii dafay waral ak yàq lépp loo xam te nii day yàq seen diine da di yàqal seen digganteeg seen borom ngeen topp ko nee na loolee da ngeen ko wattandiku bu baax a baax kon nit ki fu mu dafa war a fexe ba aw làmmiñ nekk làmmiñ bu barkeel woo xam te ni lépp lu ciy wax dina ko juri jural njariñ ëllëg yomal xiyaar mooy tiyaaba na fexe ba bañ a baril ay nelawam wàññi ay nelawam waaye na fexe tamit ba lépp luy yàq lislaam lépp luy yàq diineem mu wattandiku ko ak lu mën di doon mu ne wattalibu na ngeen wattandiku min haysu kuntum fooy man di nekk arriya ngistal wal kibra ak ak rëy wal yaqda ak ak soxar mooy ak bañeen wa ak ngeen di sàkku addiya leer ya sëriñ bi nee na ngeen wattandiku fooy man di nekk de ci ñuy wax ngistal ngistal nag mooy jëf jëfub topp mooy jëf joo xam ne jëful yàlla la waaye nag ba nga koy def sellut li tax sellut mooy yaa ngi koy def ngir bëgg ku tagg wala yaa ngi koy def ngir nit ñi gis la wala yaa ngi koy def ngir am ci nit ñi daraja ju kawe nga xam ne loolee ngay def kat yàlla taxul loolu mooy ngistal muy jëf loo xam te ni suñu borom rek moo ko yeyoo waaye yaa ngi koy jëf nag ngir leneen kon jëf jooju sellut kon loolu mooy ngistal na ngeen ko wattandiku lépp loolu di jëf rek na ngeen koy jëf te seen boroom rek tax mooy na ngeen wattandiku rëy rëy nag bokk na ci yi koy waral mooy gis ne yow kat ku am daraja nga ci kaw nit ñi nga gis keneen koo xam te ne yaakaar nga ne kii kat ku am daraja la nga koy xeeb di suufeel darajaam ngir bëgg sa daraja kawe yooyu bokk na ci nga yaakaar ne yaa gën nit ñi di leen xeeb <coughs> kon looy lu jarawatandiku la wala yàqda ak noonoo mooy ngay bañ benn jullit bul bañ benn jullit jullit boo gis ak sopp ko te yàlla tax te ngay jéggal jullit buñ la tooñee waaye nag na ngay sàkku ak leer ci sa borom lépp loo xam te nii gis nga ko nga xam ne lii kat boo ko defee di ci am ak leer ci sa digganteeg sa borom na yokk sa leer na ko def te da koy sàkku footoo waaw bañ a xeeb dara mu ne aleykum dénk naa leen bi siddiq ci dëggal wa tawakkuli ak ci wakiilu ci yàlla wa bi tawaaduxi ak toroxlu wax waxaseel am amali ak gàtt ay mbébét mu ne dénk naa leen ni ngeen di dëggal dëggal nag danga koy def ci say wax di ko def ci say jëf te mu ne dénk naa leen na ngeen di dëggal ci seen ci seen di wax ak seen di jëf ak seen yi te ngeen di wàkkiilu ci yàlla mooy ngeen di wéeru seen borom mi nga xam te ne mën bind nga xam ne lépp lu am rek mi ngeen xam ne moom la waaye nag teewul na ngeen di sabablu ndax suñu borom moo sant doomu aadama muy sabablu waaye sabablu gi nag lépp na nga xam ne la nekk ca ginnaawam mooy suñu borom ngeen jël seen mbir yëpp wéer ko suñu borom te yaakaar ko ci xam ne lu am rek moom la wa bi tawaaduxi ak toroxlu mooy na ngeen di toroxlu de bu bokk ci gaa yi xam ne dañuy rëy rëy déedéet yéen dee leen toroxlu ndax barewaana koo xam ne nii kat ku màgg la waaye mi ngi toroxlu waaye yàlla ni yëkkati ay darajaam di ko gën a yëkkati mu jëm ci kaw di gën a kawe bariwaane koo xam te nii nag bu suufe la waaye mi ngi màgg màgg ci kaw nit ñi di yëkkati boppam di bañ a toroxlu waaye yàlla maa ngi koy xëcc di ko suufeel di ko yóbbu ci daraja yu suufee kon nag toroxlu ngir yàlla rek tax lu am solo wa xasira amali ak gàtt ay mbébét sëriñ bi nee ni ngeen gàtt ay mbébét di bu leen gudd ay mbébét bu leen bokk ci gaa yi nga xam te nii fu ñu toll ci àdduna ñu ngi mbébét mbébét yu gudd di xaar mbir yoo xam te nii xamuñ kañ lay ñëw ba mbir talu ñoo jàmm yàlla wala sax mu tax ñuy négliger seen jàmm yàlla ndax bari ay mbébét di mbébét yu gudd day tax nga yaakaar ne yow di fi dund ba ci kanam kon nag mën naa laa yóbbu ci boo waree jàmm yàlla nga naan naa xaar ba ci kanam sagam maa ngi fi deewaguma wala naa xaar ba nàngam wala ngay séntu loo xam te ni ñëwagul te xamoo kañ nga fi jóge kon sëriñ bi na ngeen wattandiku gudd ay mbébét waaye nag sopp nañ ngay mbibét loo xam te nii kat lu am solo lu jëm ci yàlla ndax mën ngaa mbibét ak rafet njort ci suñ boroom mu bàyyi la fi ba ci kanam danga koy ñaan ndax bàyyi lim la fi bàyyi ba ci kanam mën a def lu gën a rafetal sa diini mën a def lu gën a tax nga am leer ci sa diggante sa borom kon mbibét yooyu moom mbibét la yuñ sopp mu ne alaykum dénk naa leen bi kasratil aadaabi ci bëri ay teggin fa innaha naka moom teggin jaalibatun aji bijj la aswaab ak yoor mu ne dénk naa leen na ngeen bëri ay teggin de foo leen nekk na ngeen am ay teggin na ngeen làmboo teggin yu bari ndax ay teggin kat lu bari ab yoon la luy xëcc nit ki di ko yóbbu ci tiyaaba la kon naa leen na ngeen bari ay teggin foo leen man di nekk fa kasratul xelmi mu ne bariwaana aji bari xam-xam wala fa kasratul xelmi aji bari xam-xam bee xayri adabi ci lu teggin jaalibatun aji bijj la ila aza jëme ko ci lor war taxabi ak coon mu ne kat képp koo xam ne dangaa bari xam-xam wala bariwaana aji bari xam-xam koo xam ne dafa am xam-xam lool waaye xam-xam boobu nag àndut ak benn teggin mu ne xam nga xam xam nga xam-xamam boobu ci lan la ko yóbbu da koy xëcc yóbbu ko ci ak lor waaye du ko yam de da koy yóbbu tamit ci ak cool kon daal ki nga xam te nii dafa am xam-xam te xam-xam boobee mu am amul benn teggin àndut ak teggin nee na na nga xam ne kook xam-xam bi du ko yóbbee dara ci lu lor ko ak di ko teg ab cool ëllëg kon nag dénkaan bu mujj lii moom mooy dëgg-dëgg ak taalibe waaye mooy dëgg-dëgg tasawuf kon faw nit ki mu am xam-xam bu am njariñ di ko jëfe waaye nag mu ànd ak ay teggin kon ñett yooyu faw mu ànd ci nit ki mu ne mën a nekk nit koo xamante ni ko ku ku mat lay doon waaw faw mu am xam-xam bu am njariñ te di ko jëfee te jëf yëpp nag mu ànd ak teggin waaw teggin moom mooy laytaay yi nga xam te ni mooy dëgg-dëgg tasawuf mooy tax jëf yépp yegg waaw mooy yëg mooy yëkkati jëf yi yóbbu ko ci yegg waaye kon sëriñ bi moo tax mooy na ngeen bari ay teggin waaw bari ay teggin ndax teggin lu bari ab yoon la kon dénkaane li mën nañ koo yemale fii kon xanaa ba beneen jotaay insha allah rabi mu des na yeneen dénkaane yu am solo ñu man koo yeggale kon ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa defal ñu dégg ak topp ñaan suñu borom may ñu am ngërëmal yàlla ak yonente bi ak sëriñ Tuubaa yàlla nañ suñu borom defal jàmm defal ko bépp jullit defal ko réew yépp kon ñi ngi wàcc kàddu yi di wax ne lépp lu fi jub nañ xam ne ci yàlla la lu fi dëng ci suñ jëm yu xew yi la in uridu illa al islaax mastata'tu wa ma tawfiqiya illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi